ngeen gisantee benn rek ngeen di lool bi loolu jàllee nag ñu baax ñii leen seq di Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Saliou Cheikh Soybu ñoom ñaar ñee dañoo jëloon seeni cër ci moom jox ko Cheikh Soybu jox nee na mu di leen sant lool nag. sant sa borom lool. ci noonee ñu doxale ci man. waaye nag xam na seen waaye nag xam na ne seen pàgguteefu bopp googu yi. moo tax ma amoon ci Seex Sooy bu ci tawfeexi cër boo xamante ne. nee na moo tax ma amoon ci Seex Sooy bu tawfeexi cër boo xam ne. pàgguteef mayu ko ko. pàgguteef mayu ko yooyu rek moo ko ko may. yaakaar naa am na ci loo xamante ni umpale woo ko yow mii. Ah, mboolem koo xamante ne rek jamono yi fiy bokk du nekk xamoon nga dara ci ci ci kër gi xamoon nga tawfeex ji ma amoon ci ci moom ci cër. nee na mboolem koo xamante ni jamono yañ fay bokk di nekk xamoon nga dara ci kër gi xamoon nga tawfeex ji ma amoon ci kër gi moom mii di Serigne Cheikh. moom mii ginnaaw xew-xew Cheikh Soyibu. nee na yow mii ginnaaw xew-xew Cheikh Soyibu. am na fi boo xamante ne dafay yónni Cheikh Diop Texet. am na ci boo xam da nga fay yónni Cheikh Diop texit. daa mel ni da ko boole woon ak ñam ko fekkoon fi moom ñëpp. mel ni da koo boole woon ak da nga koo boole woon ak ñam fa fekkoon ca ca ñoo ca yow ñëpp. ne leen nañ ñëw. ne leen nañ ñëw. moom moo bëggoon jiite. moom moo bëggoon a jiite. ndax Cheikh Soy bu da koo feeñu. ndax Cheikh Soy bu da koo feeñu. taxaw ci buntu kër bi. taxaw ci buntu kër yëkkati ñaari loxoom. yëkkati ñaari loxoom. ne ko dénk naa la Cheikh mi. nee na boobu xamul fàtte nga ko wala fàtte woo ko mu déet waaye nee na noonu la ko doxee woon. te xam na ne loola. nee na loola gëm na ne du gént gis la war a doon. kon nag yéen yéen boole daal. mooy buum gi benn rek. mooy benn la. ni ñu ni ñu ko waxee léegi rek. dap ci ci télé li ñu dap ci télé ci ci cër yi ñoo ngi tuubal suñu borom te di sant lool ndax nu mën a rek mënoon na mana kon nag mana ngi ñaan sa borom yokku nu fee bàyyi te te yokku nu saafara wu ci xale yi ci xel yi ci xol yi ci yi waaw mu ne seen diggante fàttewu ci dara. nee na lum jàpp la mu yëg la. nee na géej gi mu fi géej yaram bi ni mu si daatee woon dong ko tax waaye du dara. te nee bi mu ko yëgee ci yaramam yow képp ki mu bokkal sëñ Sonia bokk sëñ laa Lahad ak sëñ Saliou yaa fa njëkk ñëw seet si ko ñaanal ko ah. nee na loolu du ko fàtte mbàkk wala ah. nee na gën a dolli ñaan bu baax a baax. nee na sant na bu baax. sant nañ la bu baax. Ah. ndax mboolem li nga xamante ne waajur yi digaloon na leen ko moom nekku ca waaye wóor na ko ne yaa ngi ci. nee na kon loolu mi ngi ñaan ci daraja suñu Tuubaa bu jëm kanam